tey nag ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy centre de santé bu Mbacké euh, fas yéene waxtaan ak nag le médecin chef du district sanitaire de Mbacké docteur Adama Aydara Mbacké maa ngi koy nuyu de passage di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci seen site 28 pro dama koy bàyyi rek mu nuyoog auditeurs yi ak mm. téléspectateurs yi ñuy seetaan. di nuyu population bi yëpp ku nekk ci sa tur ak seen sant di kontaan aussi ci jataay bi. Mm. di wax rek ni tey euh, dañu ñëwoon di wax. ci li nga xam ne nii parce que tey jii kenn mënta nekk di wax ci àddina bi ci wàllu santé te tuddoo feebar bi nga xam ne nii moom moo nekk di lëmbee àddina mm-hmm. muy covid 19 bi nga xam ne nii ah dafa ñëw rekk daal di dikk faagaagal ñu bari yàq lu bari d'accord mm. alors tey mbokk yi xam naa ne danoon waxtaan ci lu bari ci loo xam ne jëm na ci li nga xam ne moom mooy covid bi euh, covid bi nga xam ne donc euh, ñu ngi ci troisième vague bi ak Euh, euh, variant bi nga xam ne donc euh, moom mën ne moom la bees te mu sonal nit ñi lool. Mm-hmm. waaye laataa loolu dama bëggoon maanaam ci li nga xam ne maanaam ab tënk rek. Mm-hmm. ñu ñëw ci maanaam. Mm-hmm. gestion maanaam li nga xam ne moom nga gérer district bi. ci maanaam état yu ñu toll. tey mën nañu wax district Mbacké. position dëgg-dëgg ci wàllu sanitaire ci région bi. tey mën nga ñu ko mën nga ñëw defal benn situation par rapport ak fi mu toll tey. waaw district sanitaire de Mbacké dafa nekk ci en tout cas département de Mbacké ah nekk ci région de Diourbel district sanitaire de Mbacké nag comme ni ma ko waxee dafa nekk ci département de Mbacké département de Mbacké nag mi ngi polariser seize communes seize communes yooyu bu ma ko waxee Touba ci la bokk mais nag district bi lépp lu dul Touba seize com quinze communes yi district sanitaire de Mbacké moom moo ko polarisé. Mm-hmm. donc district bi kon lu yaatu la. Mm-hmm. ndaxte dafa ëmbaale euh, ñetti arrondissement am na poste de santé yoo xam ne nii dafa nekk ci euh, arondissement de Kaël. Mm-hmm. yi nekk ci arondissement de Taïf yi nekk ci arondissement de Ndaam. district bi nag fi ñu toll nii ñu ngi toog ci benn centre de santé ak 24 postes de santé léegi sax defe naa ni ci en cours d'année bi fin d'année bi dina am beneen poste de santé boo xam ni moom itam dina ubbi muy poste de santé de Ndiayène nekk ci commune Mbacké kon vraiment mu nekk loo xam ni tam lu am solo la parce que dafay yombal accessibilité des soins auprès de la population mhm. aloor tey mën nañu wax ne kon donc li nga xam ne moom moo foro a nekk ci personnel tamit mate na ko pour gérer li nga xam ne moom mooy poste yooyu yëpp léegi nag bi feebar bi amee aussi ah ñun tam dañu nekk ci système bokk ci système de santé bi nga xam ne ni ministère de la santé moo koy définir mhm. léegi ci biir loolu Covid bi bi mu ñëwee dañu def benn dispositif li jëkk mooy former ñëpp ñi nga xam ne nii mooy prestataires yi au niveau des des postes de santé aussi bien prestataires assermentés que personnel communautaire bi aussi dañ leen a orienté pour ñoom itam ñu mën a xàmmee feebar bi ba ku ci nekk ci li la war nga mën ko def mm-hmm. ci biir loolu sax dañu dem ba ni nañ identifier ci structure bu nekk benn bërëb boo xam ne tey jii boo amee kaa boo xam ne nii xalaat nga ni ñaaw nga ci njort ni feebar bi la am nga mën ko faa isoler ba ñu defal ko prélèvement ba xam statut mm-hmm. su ko defee du wàll du lor kenn mm-hmm. waaw ba ñu mën ko jël en mais moment yi ñu toll kon feebar bi kon. yéen euh, ci biir centre de santé bi ci biir centre de santé bi aussi moom itam même chose la. Mhm. bi feebar bi amee itam dañu former personnel bi amit benn unité boo xam ni dañ ko def foo xam ne nii dafa nekk pour cas yu am tey jii euh, ñu mën ko faa isoler ba defal ko prélèvement su fekkee ni dafa war a jàll tam mu jàll waaw parce que ku ñu ñaaw njort ci feebar bi. ci njëlbéen ga dañuy warut a jaxasoo kenn kon nag ñu fexe ba loolu noonu nekk foo xam ne fu isole la ñu fay mën a euh, isolé ñi nga xam dañ ci ñaaw njort mm-hmm. ba jël leen yóbbu ba mën a désinfecté foofu te benn problème du am. actuellement bi euh, euh, centre de santé bi am na ay cas Covid wala. centre de santé bi nag ndaxte damay ñëw ndax loolu mooy bi njëlbéen bi feebar bi di soog a commencé. Mm-hmm. léegi boobu mujj gi nag ah comme feebar bi euh, bu mosaan a am ci kër sax dañ daan dem dem def dem ci kër ga daal di pomper kër gi ah confiner famille ba. Mhm. su ko defee ñoom kenn du fa dugg kenn du fa génn ñoom tam duñu dugg duñu génn. Mhm. xanaa kay service social bi moo doon dem di leen yóbbul seen lekk ak seen naan. Mhm. am na sax moment yoo xam ci auberge bi lañ leen doon yóbbu. mais tam mbir mi di avancé di avancé ñu dem ba ku feebar rek bu fekkee ni ni cas boo xam ni kaa simple la sa kër ngay toog mm-hmm. daal di nekk fenn foo xam ci kër gi doo xaw a jaxasoog nit ñi ba pare nit ñi tam di jël seen ay matukaay takk seeni masque bu ko defee service di d'hygiène aussi day dem pompe kër ga ba nga xam ne nii daal dina dina am euh, lu bari lu mu fa def ci desinfection boobu noonu ci biir wàllu kër gi ci wàllu hygiène bi mm-hmm. kon actuellement fi mu ne nii ñu tembe foofu la ñu toll bépp cas bi nga xam ne nii du cas grave cas simple la donc ci nit ki ci këram lay nekk ñi di ko fa fekk di ko faj di ko xool parce que am na cas yoo xam ni daanaka euh, signe du am solo torop waaw léegi ndaxte bu fekkee ni da nga jël cas simple yóbbu leen ca biir hôpitaux yi. Mhm. ca centre de traitement yi. ñi nga xam ni kon cas la duñ fa am place. dañuy occuper place dañuy occuper place boo xam ni. xëy na mhm. ñoom waruñu ko occuper. Mhm. léegi nag looloo tax stratégie boobu la am nit ki ku ko ku mu dal ñu xam ni yow mii kat amoo bi di te feebar boo xam ni yow xalaat nañ ni kat. kii bu ñëwee mën na indi ay loraange dañ lay téye sa kër rek mais nag chaque jour. am na district bi benn équipe boo xam ni ñoom loolu seen liggéey la am na médecin infirmier donc assistant infirmier donc ñoom ñooy àndandoo tous les jours xool dem apprécier état malade bi ñuy def noonu ba malaat bi wér hmm. donc ba bañ koy defalaat au bout de 14 jours prélèvement am xool ba xam ndax négatif na wala aussi ça va mhm. bu fekkee ni tam le cas ci biir loolu dem nañu seet xool ni malaat bii kat mu ngi am ay signes de gravité. Mhm. dañ koy daal di defal papier. Mhm. rapidement yóbbu ko référé ko ci centre de traitement. centre de traitement bi. noonu la kii bi di demee donc population bi aussi leader ñoo yi. ñëpp tey jii tàggat nañ leen ci feebar bi ñëpp en tout cas xam nañ ko xam niñ koy moytoo te loolu tam am na solo ndax comme ni ma koy faral di waxee toujours euh, feebar yi xëy na pop euh, santé techniciens yi ñooy faj mais population yi nag ñoom ñoo mën a xeex feebar bi donc buñ ci àndee ah population bi ak ñi nga xam ne nii seen xam-xam dafa màcc jëm ci sante mm-hmm. bu ñu àndee ci ndigal yi je pense que feebar bi mën na dellu gannaaw bu baax te bu delloo gannaaw après day jeex. d' accord mais alors euh, est ce que tey euh, population bi nga xam ne donc moom nga coiffé. ci mhm. wàllu wér-gu-yaram. Mhm. est ce que conscient nan ci li nga xam ne moom moo am jamono ji ci cas bi ni mu gënee grave ñu mën a gën a mën a ñëw ñàkku si message bi mi ngi jàll ci ñoom. Euh, tamit euh, li nga xam ne moom nga wax sànq ne bu ngeen amee malade. Mhm. ci di ko suivre à distance à domicile ndax yooyu tamit maanaam du leen indil ay jafe-jafe wala ay risques yoo xam ne maanaam yeneen ko ciy xaar. loolu nag du ñu indi risque ndaxte comme ni ma la ko waxee bu ñuy dem équipe bi équipe bi buy dem man sax au départ daan naa ci àndandoo pour bu fekkee ni cas bi dafa am première fois bi damay ànd ak équipe bi ñu dem xool apprécier euh, après ñëw donc euh, te comme ni ma la ko waxee euh, comité de gestion lutte des épidémies mhm. bu dee région Euh, médecin chef de région ba ci la bokk ak gouverneur. Mhm. mais bu dee département bi préfet bi ci la bokk. mooy président médecin chef rapporteur donc kon ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy membre yi ci biir kon lépp li ñuy def li ma lay wax nii yëpp dañ ko ànd ak administration muy préfet gouverneur depuis la. mooy li nga xam ne donc moom mooy risque yi. yi waaw kay donc kon foofu amul risque comme ni ma la ko waxee. parce que bu ñuy dem déjà dañuy yor motukaay yëpp. dañuy yor sur sur blouse yi nga xam ni boo demee. Mhm. moom ngay sol. dañuy ànd ak service d'hygiène aussi. Mhm. service genne sax moo fay jiitu dem pompe kër gi traité ko ba nga xam ne ni y' a de de beaucoup de risques ndax risque zéro moom n'existe pas. Mhm. mais au moins ba minimiser risques yi. su ko defee nag ñun ñu ñëw nga sol blouse sol sa gant ak bot donc vraiment euh, sol sa coiffe xam nga nga xam ni vraiment tu es protégé physiquement. li ci des nag da ngay yor eau de javel aussi boo dikkee. laal sa solution gel hydroalcoolique laal kii nu mu tuddati. Mm-hmm. yor eau de javel yor tout ce qu'il faut. Mm-hmm. dañuy am sax ay sachet yoo xam ni ah mën nga ko porter soo paree lépp loo pare ci nga koy def def ko ci poubelle bi nga xam ni boo dikkee directement mi ngi noonu. alors ban message moom moo war a am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem ñakk ji pour ñu ñeme ñàkk parce que souvent ñeen ñi dañ naan yii ñàkk yi wóorut yéen ban message ngeen war a joxe. pour nit ñi gën a bàyyi xel ci li nga xam moom mooy vaccin yi. waaw xam nga ñun mesure yi nga xam ne nii moom mooy moytu feebar bi. d'abord. moytu feebar bi d'abord mooy mesure barrière. Mhm. mooy maanaam takk sa masque. di mhm. yor sa gel euh, di di raxasu. di mhm. ah, yor eau de javel foo toll. di yor sa gel foo toll. kër yi ñu leen di nettoyer parce que bu fekkee ni nit ñi dañoo jël. am hygiène individuelle mooy corporelle yow yow set nga. Mhm. waaye yow fa nga nekk setul. Mhm. tam ba tey yaa toujours des risques moo tax nit ki da nga war a nekk yow set sa dëkkuwaay tam set kër yi ñu leen di nettoyer di leen nettoyer bu ñuy nettoyer def ménage ñu boole waale ci eau de javel. Mhm. donc ba ci ndab yi sax buñ koy raxas mën nañu euh, ndox mi ñu koy raxase ñu doqal ci ay eau de javel donc c'est toujours un plus waaw loolu sax même bu dul feebar bi. loolu dañ ko war bokk bokk ci hygiène bi mhm. defe naa ni sax xëy na comportement yi buñ ko continuer yàlla mën na def sax bon feebar yu bari dina fi jóge mhm. waaw ndaxte hygiène moom dafa am solo d'accord nga ñëw ci li nga xam ne moom mooy vaccin yi nit ñi maanaam message bi ñu war a am pour vacciner aussi comme ni ma ko expliqué rek mhm. euh, prévention bi xam nga mesure barrière yi ci la bokk mais aussi vaccination bi moo ci jiitu alhamdulilah au départ bi ñu nee commencé vaccination yi donc defoon nañu lancement fële à la préfecture nit ñi amoon nañu engouement. di mhm. ñëw di vacciné wu. Mhm. bon ñu jékki-jékki mu am ñi nga xam ni ak ci yeneen ay wax yoo xam ni ba jaxasee xelu nit ñi. Mhm. mais tey jii tey jii district sanitaire de Mbacké. man dama am satisfaction. ndax li ma gis tey ci mbooloo ñu ñëw di ñàkku. mosuma ko fi gis. te loolu depuis depuis mardi ba léegi je pense que li ñu dese woon ci vaccin sax mardi dañ ko épuisé jour boobu. Mhm. ndax fii yabe un rush. les gens sont venus nit ñi dañoo ñëw en masse ñëw di ñàkku si. Mhm. donc réserve ba ñu amoon. Mhm. jour boobu lañ ko jeexal. donc démb la ñu amaat beneen arrivé. donc tey jii moom la ñu xëy nekk di vacciner. tey jii defe naa ni. Euh, bu ñu boolee ñi doon jël seen deuxième dose. ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñëw jël si eh, seen dose. Euh, première dose bi première wala benn dose bi. une dose bi. Mhm. Johnson Johnson bi uni mhm. dose boobu noonu. Mhm. ëpp nañ deux cent personnes. y avait fii tey. kenn xajul woon fii tey jii. nit ñi ñëw man nag vraiment dama ci kontaan. ndax loolu mooy wane ni population bi def nañ prise de conscience. ci vaccination bi ah parce que man je pense que daw ba mucc moo gën ñeme ba dee. yow vaccin bi boo ko jëlee da lay aar. Mhm. waaw nga jël ko mu aar la moom moo gën nga toog ni déedéet duma ko jël. Mhm. ba feebar bi ñëw lu ma am jël. Mhm. Ah, am na ñu bari ñoo xam ne nii feebar bi yóbbu na leen te loolu rek moo ko indi. nekk di jiixi jaaxa ragaluñ ko donc euh, gëmuñu ko ba loolu dal leen mais tey jii fi ñu toll Sénégal defe naa ni ñun on se réjouit. parce que ni ma gisee nit ñi jël ko ñàkk yi. waaw defe naa ni su continuer mhm. bu ñu protéger nit ñi nii. Mhm. defe naa ni feebar bi dootu fi amati. mais am na ñuy wax ne maanaam vaccin bi. Euh, lenn dong ci la lay aar moom mooy boo vacciné woo mën nga corona te doo ñàkk sa bakkan euh, affluence bi ñëwoon tey. ban ban ban ban léegi bala ngaa jàll sax. dama damaa defe nit ñi sax dañ dul xalaat ca gannaaw. Mhm. damay jël rek exemple lu ngas. waaw ngas mais ngas bu njëkk dañ doon wax ni tànk sa doom ngasul ba wér. Mhm. amaguloo doom parce que bu ko dalee. Mhm. Euh, presque xale yi dañ doon dee dans le temps mais léegi bi vaccination bi ñëwee ñuy ñàkk xale yi. Mhm. mais parfois mën na tisati xale bi. waaw waaw mooy tisati. mooy ni mën na nekk en contact mu xaw a ko la maanaam frôlé. mais du développer feebar bi. kon vaccin yëpp noonu la mel. nee naa la risque san euh, maanaam san pour cent amul fenn. waaw kay. donc kon mais su ko dalee da koy romb rek. da koy romb rek da koy romb loo xam ne da lay romb kay du la yàqal. du la yàqal waaw bokkul ak loo xam ni bu ñëwee. Uh-huh. day agsi ak doole. Mm-hmm. fekk la amoo doole mu faagaagal la. alors ñi nga gis ñi nga gis ñi ñuy ñëw vacciné te ñëw en masse ban catégorie d'âge la. troisième âge toutes toutes les catégories tey c'est ça ma satisfaction mhm. y avait des jeunes ah ñëpp daal laa gis ni tey ñoom ñoom ñoo ñëw dafa mel ni sax tey suma ma juumul mhm. dafa mel ni euh, jeunes yi ñoo ci ëpp kon da nga nar am problème rupture encore ci par rapport ak vaccin yi nga jot am dose yi nga jot am ah xam naa ni de li ñu am buñ ko ñàkkee fii ak ñetti fan ñeent damay ragal ni dina kii dina jeex mais ñun dañ ciy kontaan parce que loolu lañ soxla. à l'approche du grand magal de Touba. Mhm. demande bi tamit day gën a yokk ci seen côté yéen wala da ngeen da ngeen xaar rek quota bu leen envoyé. non non xam nga comme li may wax rek. puisque waa xam na ne ministère moom mooy. seen kilifa dañuy yàlla parce que déjà notre président de la République. Mhm. Euh, il avait pris conscience très tôt dem commander ay vaccin indi vaccin donc kon moom mooy fexe ba vaccin yi ñëw ci dëkk bi mhm. bu ñëwee ministère réceptionné vaccin yi su ko réceptionné jox ko structure sanitaire yi mais structure sanitaire itam ndax estimation la dañuy def ñoom seen expression de besoin mhm. donc expression de besoin structure yooyu ci la ministère sukkandiku pour moom itam def ay commande vaccin mhm. kon je pense que liggéey boo xam ne liggéeyu équipe la ah bu boobaa nag ki nga xam ne nii mooy njiit gi moom moom mooy dem di jënti ji ko donc kon moo tax ma xam ni mhm. du am rupture parce que ñoom bàyyi nañ xel ci loolu noonu mhm. alors euh, docteur ñu fas yéene tamit nag euh, gannaaw gi nga xam ne donc euh, laaj nga say dose indil na la li nga xam ne war population bi ñu ngi commencé comprendre situation bi ñu ngi ñëw en masse mais sa équipe Mm. doy na pour accueillir personne euh, affluence boobu yëpp wala wala doo soxla renfort. non non non parce que l' équipe est bien organisée. Mm. am na ñi nga xam ne ni ñoom ñooy vacciné donc am nañu équipe boo xam ni salle bi ñoom ñooy vacciné am na équipe boo xam ni ñoom ñooy enregistré am na équipe boo xam ni ñoom ñooy def ordre. donc je pense que vraiment tout est bien huilé parce que depuis très longtemps mm. lañu lii ñuy dund tey jaaxaluñu parce que prévoir woon nañ ko depuis très longtemps organiser woon nañ ko. Mhm. li ci desoon kay mooy nit ñi doon ñëw comme ñëwuñu woon nag. Mhm. <laughs> c'était ça quoi. am na ñi nga xam ni daanaka kon. Euh, sonnatuñu woon mhm. mais tey jii bi nga xamee ni nit ñi dañu ñëw ñëpp ñëw def tir groupé ku nekk travail à la chaîne ku nekk li nga war a def nga def ko d'accord sensibilisation bi mu ngi jàll waaw message baa ngi gën a jàll. bu baax sax kay. foofu laa jóge nii léegi fi ñu doon vacciné. ok ci sensibilisation mais j'ai vu que waaw c' mhm. vraiment bien. say relais say relais kon ñu ngi ciy waxtaan ak askan wi bu baax. relais yi euh, relais yi defe naa ni on a formé des centaines de relais yi nga xam ni chaque mois dañuy def ay ay ay ay milliers de VAD. Mhm. dañuy def ay VAD. Mhm. donc xëy na yoruma chiffres yi nii sous les yeux. mais je chaque mois chaque mois lu mu gàtt gàtt dinañ def mille VAD. relais waaw au niveau à bu am solo la. Mhm. parce que ñoom ñooy def visite de proximité. Mhm. dem ci biir askan bi waxtaan ak ñoom ñun fu ñu mënta àgg ñoom ñooy dem àgg fa. donc waxtaan ak nit ñi bañ def prise de conscience donc kon lii yëpp aussi. ak presse bi aussi parce que presse bi tam joué na ci role bu am importance mm-hmm. parce que euh, sensibilisation yi de yi de proximité la ñuy dem ci au niveau des domiciles ak mm-hmm. des euh, mm-hmm. mais aussi presse bi tam am na yoo xam ni tam dañ koy jàllale ci presse bi donc presse bi di ko jàllale tam nit ñi di ko dégg comme lu mel ni lii ñuy def nii tey ah loolu tam dafa am solo d'accord alors ñu jeexalee nag ci li nga xam ne moom mooy tamit euh, parce que gérer woo dong euh, Covid da nga euh, euh, structure boo xam ne dafay laal ci jàngoro yu bëri mën nañu ñu ngi ci période hivernal mhm. siburu bi nit ñi tamit. Mhm. dañ koo ba xaw a fàtte gannaaw ndax Covid bi. Mhm. matuwaay yi ngeen ci war a jël ci maanaam parce que tamit bu xawee bëri rek dana leen xaw a perturber par rapport ak Covid bi yan matuwaay ngeen jël. foofu noonu waaw xam nga Covid bi bi muy soog a ñëw. Mhm. ndax nee nañu lu la bett mën la. Mhm. donc bi muy soog a ñëw nekk na feebar bu bees. Mhm. donc ñu jël sunu xel yeeg sunu xalaat yëpp. sànni daal di ko fay jiite. mais dafa fekk dafa am jéego yoo xam ni. dañ koo defoon ci sibbiru ba pare. parce que sibbiru moom defe naa ni ci district sanitaire de Mbacké. léegi defe naa ni ci kanam tuuti sax bientôt dinañu àgg ci pré élimination. ndax def nañ ci ay jéego yu baax. waaw parce defe naa ni ci région bi. Ah Bambey moo jiitu Bambey moom mu ngi ci presque pré-élimination Mbacké hmm. moo ciy topp Mbacké moo ci topp hmm. donc Mbacké génn na zone rouge bi depuis deux ans hmm. donc ça veut dire que vraiment Euh, prévalence palu baratul ci district sanitaire de Mbacké mm -hmm. parce que en 2019 on était à 14 pour mille léegi nii presque ñu ngi ci euh, cinq pour mille xam nga loolu kon bareetul mhm. te deux pour mille moom boo fa àggee presque yaa ngi nekk ci waajal pré élimination mhm. kon loolu nekk na lu am solo mhm. loo xam ni ñun itam ñu ngi koy essayer maintenir boobu ba léegi ndaxte ci wàllu moustiquaire yi dañ ci liggéeyoon lu am solo waaw leader communautaire yeeg euh, religieux bàjjanu gox ASC ba àndandoo woon xee bokk ci xeex bi ba nga xam ni si biiru moom defe naa ni heure bii bu mosaan a taw benn yoon yéen da ngeen di fekk fii fees dell mhm. mais léegi te TDR yi sax gisaguñu ñuy positif parce que nit ñi ci seen bopp ñi ngi tëdd ci moustiquaire xam nañu avantage yu moustiquaire et programme bi aussi le programme de lutte contre le palu mosut lâché structure sanitaire yi mhm. parce que sax dafay def chaque année day am benn plan d'accélération pali boo xam ni mm. ñoom dañ koy financer yoo xam ne nii pour mën a def ay waxtaan sensibiliser nit ñi tout le temps mm. ak it di distribuer moustiquaire de routine dans les structures mm. day am ci structure sanitaire yi mm-hmm. day am moustiquaire yi nga xam ne nii ñoom mm-hmm. dañ koy jox femme enceinte yi gratuitement mm-hmm. mais aussi keneen koo xam ni du femme enceinte su bëggee moustiquaire day dikk jënd ticket bi fay moustiquaire bi 500 francs mu nekk loo xam ni tam lu am solo. moom fi ñu ci àgg vraiment. defe naa ni du ñu àgg ba fii di baisser les bras donc toujours. Euh, defe naa ni bi feebar euh, Covid bi xawee dem ba xaw a sedd ci jamono yële donc toujours aussi programme yi dañuy rappeler ni bu ñu bàyyi suñu loxo waaw donc li ak yi nañ fexe ba. maintenir ko. d'accord moo gën nga dem dox ci ay dox ci benn feebar euh, def ci ay jéego yu am solo. Mhm. nga toogaat ba nekkaat ca point mort. donc heureusement alhamdulilah. Mhm. dernière nouvelle. parce mhm. que moom moo demoon ci revue bi on est à moins de trois pour 1000. donc kon vraiment ñu ngi concurrencer sax ba ñoo presque ñoo Bambey ñoo xaw a yem léegi nii. d' accord alors euh, docteur fi ñuy jeexale yow laataa may xëcc El Hadj mu compl indi ma ay complément rek. moom mooy que ni dañuy wax tamit souvent euh, kuy liggéey war nga mën a maanaam natt sa bopp xayma te soxlawu ko par dafa mel ne soxlawoo ko parce que am na ay jamono ñëw nañ fi di waxtaan ak yow nga ne soxlawut ngay natt sa bopp parce que xam nga li ngay liggéey mais tey boo ma doon évaluer poste santé euh, santé bi. Hmm. tey mën nañu constater ay manquement yoo xam ne nii am na euh, amu fi te da nga ko soxla yow. Hmm. est-ce que yaa ngi def ay demande yooyu noonu di ko di ci baaxewaale tamit askan wi nga xam ne soxla nañ ko walla. dama xamul loo bëgg a wax. foofu maanaam nee nañ fii mën nañu amul ab génico dañ koy wax nan ma boo xam da nga koy àbb dégg naa fi ñu ne sa oto yi tamit am amoo fi ambulance yooyu noonu est-ce que lu ñu mën a fir loo ñu mën a firndeel la walla. loolu duma ko firndeel. Mhm. Euh, parce que ñun dañuy liggéey comme li ma la wax ak ministère de la santé. district sanitaire de Mbacké nee naa la 24 postes de santé la am ak centre de santé. donc vingt quatre postes de santé yooyu euh, ñaar ñoo ci amul ambulance mais ñaar yooyu ci commune bi lañ nekk ci commune bi lañ nekk donc ñoom sax soxlawuñu ambulance hmm. d'ailleurs sax benn ambulance bi fii la nekk ci centre de santé bi donc ambulance centre de santé bi am na ambulance boo xam ni NMA moom la ñu mujjoon a may muy ambulance boo xam ni hmm. dañ ko may mu nekk bees en de cela aussi poste de santé yi bu ci nekk am na ambulance nañ ja nañ bu ñu bu ñu fàtte ni district bi centre de santé la plus poste de santé yi mhm. donc ambulance yi foo ko soxla tey mhm. foo soxla ambulance tey jii ambulance bi ñëw léegi def li nga bëgg donc kon je pense que fii problème mu ambulance franchement amu fi ku ñu may nag ambulance ñu mhm. jël parce que ambulance moom du doy parce que am na strict abon ah, ah am na ay institutions yoo xam ni parfois dañuy ñëw ah da daan ñëw fii ñu leen di renforcer ci ambulance bu ñu mhm. ay accident amee walla yooyu ñu leen di renforcer ci ci ambulance mhm. donc pour diir que ni euh, duñ ni dafay manqué parce que ambulance am na fi donc bu fi amuloon ñu ne amu fi mhm. mais parfois day am ñoo xam ni dañuy am malaat bëgg ñu yóbbul leen ko Dakar mais ñun dans le cadre de la référence contre référence malade yi ñuy référé Touba la ñu war a dem bu ko jàllee Diourbel mais nag nit ñi dañuy ñëw. bëgg ñu ñëw yóbbul ma sama malade bi yóbbul ma sama malade Dakar. bu boobaa man li ci ëpp damay xool poste yi nga xam ne ñoom euh, seen fréquentation bariwul. Hmm. ma jël seen ambulance. te yooyu ay cas d'urgence lay doon rek du c'est pas une obligation tamit. déedéet mais xam nga tam. nit hmm. du ñëw ni la dama am malaat ah nga di ko seetaan. ok il faut nga def quelque chose. Mhm. mais ñun suñu ñun ñun dans le cadre la référence contre référence. Mhm. Touba la ñu war d'accord bala ngay tàggatoo euh, joxal ma El Hadj rek xam naa ne moom euh, ci sa ndigal tamit xam naa ne. Mhm. am na loo xam ne maanaam mi ngi sur le terrain. tout am na tam lu ma bëgg a que toujours nit ñi dañuy jaawale centre de santé ak hôpital. ak fii district sanitaire la am mooy centre de santé plus poste de santé. Mhm. même district Mbàkke tey bu amoon fukki hôpitaux fukk. Mhm. Mhm. du tere dina am district. <laughs> waaw comme Touba ni mu amee district am hôpitaux kay fi ne. loolu foog nit ñi comprendre ko ce qui est valable à Touba est valable pour Mbàkke Mbàkke amul hôpital. Mbàkke district la am ñoom ñooy def. tout ce qui est activité préventive district ñoo koy def. Mhm. moo tax district fi mu ne nii. Mhm. gisoo hôpital muy ñàkk de. hôpital mi ngi ñàkk. Mhm, non du ñàkk parce que acti euh, hôpital activité curative lay def mais district ñooy def activité préventive yi kon fi mu ne nii soo demee tey jii Touba district ba. moom mooy organiser vaccination yi. nga dem beneen structure districtati même chose. Mm-hmm. soo demee Dakar tey hôpitaux yaa nga fa mais district yi ñooy vacciné. Mm-hmm. district yi hôpitaux yooyu par exemple tey jii localité bi bu dee dafa am hôpital am district bi mais hôpital bi ay doneem ci district bi la koy versé. <laughs> ah bon. parce que il faut nit ñi am aussi loo xam ne foog ñu xam ko. Mm-hmm. moo tax Mbàkke ñu bari dañuy précipité ah. dañuy jaawale district ak hôpital te dama leen di wax ni leen euh, lépp lu ñuy def c'est en collaboration avec le ministère de la santé mhm. donc en 2016 dañu defoon euh, carte sanitaire def euh, évaluation bi ñu defee évaluation bi yaa u eu un CRD devant le gouverneur ñu pare ñu def CDD au du préfet ñu xool les gap en structure sanitaire au niveau de la localité. Mmh. Dans toute la région. Mhm. Et à l'instar de, des autres structures de, du pays. Mhm. Donc, bi biñ ko defee on a trouvé des gaps ci la ñu wax ni que euh, Mbacké devait avoir un hôpital doit avoir un hôpital. donc loolu c'est prévu dans la carte sanitaire ministère xam na loolu. Mhm. peut-être que nit ñi ñoo ko xamul. mais ñun xam nañ ni que il est prévu un hôpital à Mbacké mais Mbacké bu amee hôpital le district va demeurer. d' accord boo xam naa ne sama réalisateur ñu ngi ma naan waxtu bi. waaye itam loo yàkkamti. Euh, waaw lu ñuy cërle woon ci waxtu. ko lay def waaw léegi. mais euh, li may wax nii c' est important. parce ah. que ñu bari xamuñu ko. waaw am na solo am solo muy diggante donc aussi y' a des des des centres de santé aussi. Mhm. qui sont prévus au niveau des arrondissements au niveau de l' arrondissement de Taïf. Mhm. y' normalement Taïf et, et Sadio doivent avoir chacun un mais mais mais may ma ko euh, hôpital bi ngay wax pour Mbacké euh, am ngeen ci yaakaar. amul c'est c'est c'est écrit. c'est écrit boo xam ne mais écrit boo xam ne maanaam ba léegi xamaguñ kañ lañ koy réaliser tamit mënuñu xam app bi. Mbacké bu fekkee ni am na terrain. Mhm. parce que Mbacké je pense que c'est un peu saturé bu fekkee ni Mbacké am na terrain. Mhm. bu mhm. que le kon loolu kon doy na waar El euh, ci euh, gis na jeexal na même une minute foofu rek par rapport ak euh, situation actuelle bi ci nga xam ne madame Sànq wax na ko ci ci am na ay chiffres yu mu joxe yu mu jot avancé mais tey yow mi nga xam ne yaa ngi ci au cœur de de l' même muy vaccination bi ak kii bi mën nga ñëw waxool situation exacte bi. situation exacte bu. bu bu Covid bi. ah bu Covid bi waaw. waaw accord donc comme ni ko le médecin chef d'ici waxee man c' est El Hadj Ibra donc je suis le responsable du programme élage de vaccination et point focal surveillance épidémiologique. Mm-hmm. donc euh, depuis le début. mën nañ ne bi mbas mi commencé ba léegi on a enregistré bu ñu defee cumul bi. 165 mm-hmm. euh, cas. Mm-hmm. donc si 165 cas yooyu donc am nañ ci 116 communautaires. am nañ ci 48 contacts am nañ ci benn cas importé. Mhm. ci loolu aussi enregistré nañ 11 décès depuis le début. ok on a enregistré 11 décès. Mhm. donc loolu je pense que mooy mooy mooy situation bi. Mhm. depuis le début. waaw ko defee mbas mi ñëwee ba léegi. par rapport ak vaccination bi. par rapport ak vaccination moom boo ko jëlee parce que vaccination bi ay pàcc la donc vaccination bi mu ñëwee Sinopharm moo njëkk a dugg Sinopharm à l'heure où je vous parle donc on a vacciné plus de 3000 personnes. au niveau du district. Mhm. boo jëlee AstraZeneca bi on a plus de personnes au niveau du district. Mhm. Johnson and Johnson bi nga xam ne tey tey la ko Mbàkke commencé. Mhm. tey jii rek rien que pour le centre de santé on a plus de de personnes. te loolu données centre de santé bi rek la. les postes n'ont pas encore en tout cas transmis leurs données. nga xam ne dañuy def synthèse dugal ko ci plateforme DIACS2 bi envoyé ko ministère de la santé. kon donc am ngeen euh, xel mu dal daal ci vaccination bi nit ñaa ngi ñëw en masse. waaw macha allah depuis l'avènement variant delta bi. Mhm. dañu am lu ñu seetlu mooy benn benn benn adhésion spontanée. Mhm. donc nit ñi moom franchement tey jii rek dañoo ubbi liste mais on était submergé. donc il a a fallu ñu ubbi lif ñii ñu vacciner leen tey ñu jox leen suba pour ñu vacciner macha allah actuellement moom les gens sont conscients ñoo ngi ñëw di vacciner wu. d' accord merci El Hadj euh, Ibrahima Guèye donc euh, xam naa rek euh, sama gars yi ñoom ñoo ma xoj fi ne nii ci waxtu bi docteur xam naa nag ci lu looy tàggatoo rek ak message bi nga xam ne tamit moom mooy message clé bi. Euh, pour euh, situation bi gën a mën a gaaw euh, décanté wu par rapport ak ci nit ñi ci conscience bi nga xam ne war nañ ko àndee demee ak Covid bi waaye tamit ci avancement wu li nga xam ne moom mooy centre de santé bi. waaw message bi may wax daal mooy nit ñi nañ conscient ni feebar bi mi ngi fi ah te ñun ñoo mën a fexe ba lawtan bi arrêté donc liggéey waa santé def seen liggéey. nit ñi aussi respecter mesure barrières yi dem defi seen vaccination defe naa ne suñ ko defee xàccee ndoo dóorandoo feebar bi mën na dellu ginnaaw bu baax a baax a baax. par rapport ak centre de santé bi. Hmm, centre de je pense que comme li ma wax rek Mbàkke euh, centre de santé bi mi ngi def li mu war a def parce que comme ni ma ko waxee léegi Mbàkke district sanitaire de Mbàkke ci. ñi nga xam ne nii euh, structures yi nga xam ne nii elles ont les meilleurs indicateurs Mbàkke ci la bokk kon nag je pense que foofu mënuma xalaat ni am na problème d'accord ah. jërëjëf aadama ay dara Mbacke médecin chef district sanitaire bu Mbacke moom la ñu daloon mbokk yi seen émission découverte seen site pro ñu ngi am mbégte bu baax wax di leen dig daje ci yeneen jotaay ak moom ci nu mu gën a yaatoo par rapport ak activités yi nga xam ne ñu ngi koy déroulé ci biir mën na ne euh, programme bi nga xam ne nii moom moo nekk suñu kanam mu jëm ci wàllu paludisme beeg ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko fi xaar parce que bërki démb am na benn formation bi ñu def mais daan ci gën a yaatal loolee yëpp nag dinañ ci dikkaat incha allah ci ñu mu gën a yaate ci yeneen interview mbokk yi seen site 28 pro di leen dig ci yeneen jotaay caméra bi ñu ngi fàtt ni ñu ngi àndoon ak euh, Bekkaay Ndiaye ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbacke Fall ci réalisation bi euh, Talla Samb ñu ngi béggee bu baax a baax tamit suñu partenaire KSS tamit di leen gërëm bu baax a baax ci jàppale bi dig daje ci yeneen jota